occupation anarchique de l' espace public maanaam su weesoo Kër Massar xaw ma fan la nit ñi gën a occupé espace bi ku dul fii Tëngéej mais loolu maanaam préfet bi jël na si ay dogal tey ñu ngi fii Tëngéej jaar nañ juuti ba jóge juuti ba dem Rufisque jóge Rufisque ñëw fii rond point mu doon ay espace yi nga xamante ne jaaykat yi dañoo occupé woon tali bi kër yi dafa débordé woon ba si kaw tali bi mais préfet bi jël si dogal tey nag ñu ànd ak moom si terrain bi ñu xool yan dogal si jël naka la ko jëlee ñu gis ne nag fii lu fi am dafa xaw a exceptionnel maanaam population bi ak marchand ambulant yi ñu si bëri dañoo d' accord si dogal yi ànd ak préfet bi doxal ñu ngi fii si daralu Tëngéej muy foraay bi mur bi gisee ni mur bi toll te li li mooy mur mhm. bi waa waa Tëngéej loolu Tëngéej ñoo ko tabax. Mhm. ci daanaka cinq jours nañ ko tabax. parce que monsieur le préfet gis nañu genre euh, déguerpissement yi am na fi amaat fi mais à chaque fois nit ñi dañuy ñëwaat lu tax loolu est-ce que bii pas doon beneen boo xamante ne nit ñi dañuy ñëwaat rek. waaw bii de dafa am lu wuuteex yi fi passé parce que déjà fii fi ñu taxaw nii yàgg nañ fee jëlee nit ñi ay at ñu ñëwaat mais bii bi neen fi jëlee dañoo tabax mur bi mhm. kon loolu différence la ak fi amoon. yeneen place yi dañ daan jëlee nit ñi ñuy ñëwaat bi ñu leen fa jëlee dañ leen dugal si biir marché bi utal leen ni place et c' est ce que nous pour contrôler suñu espace public loolu moo tax tey ñu mettre en place un comité départemental de gestion du cadre de vie muy un contrôle citoyen que nous allons assurer jusqu'au niveau quartier avec des comités de quartier ñoom ñëpp ñoo siy jàpp di contrôler suñu bopp di aménager suñu bopp bokk ci département de de Pikine ñun li nekkoon ci côté Rufisque bi yëpp moom nañu libéré waaw li nekk ci côté Rufisque bi kon fii da ngay gis gis ngeen li mu mel donc là amoon nañ débordement yoo xam te ni madame na ngeen def. mais monsieur le préfet na yomboon na. Euh, bon lii dañu communiquer ak nit ñi bi ñu ñëwee aussi ñëw nañu avec cadastre ak urbanisme ñu indi plan yi plan de lotissement yi ñoom aussi ñu génne seen i plan gis nga xaaj bi ngay gis ñoom ñoo ko tojal seen bopp kon ñun machine bi dafa ñëw rek pour àggali yenn yi war leen aussi <laughs> moom mi ko fi def moom moo ko war dindil boppam mais monsieur le préfet ban complicité ngeen am ak citoyen yi waa complicité de man euh, parfois su may dox fii euh, du ma sax comprendre parce que nit ñi da ngay gis ne li ngay def ñoo la ko gën a bëgg. ñoom ñoo lay proposé sax des choses. gis nga léegi kii mi ngi naan préfet ñëw leen fii. Mhm. préfet ñëw leen fii préfet bu leen fàttali bu leen fàttalale. Mhm. kon ñoom ñoom ñooy mën action bi man daanaka damay ñëw rek gunge leen. Mhm. am nga kii. waaw waaw waaw am nga kii. moom doy na si seede. moom moo puusal boppam. gis nga li mu yor ni fii la nekkoon. mais bi ñu waxtaanee ak moom dafa jël disposition yi. puusal ko boppam. préfet tamit mu def rafet na parce que ñëw na waxtaan ak nit ñi ñëw na kat ah fi ngeen occupé du yoon waaye may naa leen délai. délai bi délai kiiwul gàttu. non de jox nañu dele boo xam ne délai provisoire la boo xam ne. baax na kuy def non pas du tout pas du tout pas du tout pour ñun. je parle de mon cas personnel. pour ñun jox nañu délai boo xam ne effectivement ça nous a permis de faire notre travail. dernière fois bi ngeen déménagé kiosque yi. ndaw si dama ko wax. ma ne ko préfet ñëw na fi déménagé na kiosque yi mais yow dellu si nga mu ne dafay defante mu ne moom day defante mais yéen bu leen defante ak moom non non duñ defante non non bu leen defante ak moom loolu bàyyi leen man dinaa waxtaan ak moom ñu xool kiosque kiosque bi fan nañ ko mën a déplacer moom gis nañ ñu population bi adhéré nañ à chaque fois si sa démarche lan moo a loolu ko dañu sonnoon sonn ci loo xam te ñoom mën ñu ci dara bëggoon ku leen ko defal te gisuñu ko ñu nekk ci coono boobu moo tax bi liy ñëwee ñu waxtaan ak ñëpp ànd ak ñëpp ñëw di ko def ñoom dañu adhéré. dëkk bi dañ koo war a defaraat ñun nag ñun ñun askan wi ñun ñoo ko mën a defar lu question ay gouvernement mooy defar gouvernement ñun ñoo ko mën a jàppale. affaire bi mën a jàll. merci beaucoup man moom rafetlu naa li lii lii moom dama ko rafetlu torop torop torop sax waaw. taximan la fii laay jaar mais bi ma ko gisee damaa kontaan. miir bi dafa leen ay gàllankoor. mais pas miir bi sax même ñeneen ñi sax ñeneen leneen ñi yëpp. moom kay li nekk ci trottoir yëpp moom dañ ko war a dindi. kon daanaka mbedd mële ba mbedd mi sen seen kilo seen kilo bokkoon waaw daanaka benn benn benn supermarché moo ko jëloon. waaw def ko daal. propriété privée. waaw propriété privée ba fii. lépp bind nañ ko boo xoolee boo xoolee marque yu rouge yële. waaw nga xam ne dañ ko some woon. waaw marque yu rouge yi boo xoolee xam ne dañ ko somme woon. waaw moom ñi nekk fii yëpp. ak képp koo xam te da nga fiy def liggéey boo xam ni daal jaarul yoon wala ngay tabax tabax boo mun autorisation yéen ñëw na la taxawalal liggéey boobu wala nga def lotissement boo xam ni fu ñu warul def lotissement wala foo xam te ni lotissement bi baaxul jël naa arrêté ba arrêté yooyu yëpp taxawal naa loolu lépp këpp foo xam te lotissement dañ du place u parce que lu si ëpp place ndox la boo leen bàyyee ñu def ko bu subaa dañ naan foofu am na inondation état du Sénégal nekk di sonn te biñ koy def ñun ñu ngi si teg bët di ko xool kon man man de en tant que autorité fu ma gis ne place ndox la bu fa nit commencé samp ay borne ma jël arrêté interdire fa euh, tout lotissement wala toute construction te loolu laa nekk def si département bi yëpp te nous allons continuer incha allah